kii nag sam ñetti mbokk lébu la woon xam nga sam mbokk lébu yi rek am na si am na si ña nga xam ne moom dañoo xaw a bëgg mburu ndëg sam gaay gaayeen dañ doon dox noonu rek ñu jég saay ñu may leen benn kilo mburu te fekk gars yi instant boobu gars dañ xiif nag xamuñu nag naka lañ koy kiiwee euh, naka lañ koy séddoowee léegi mu am rek kenn ku jaay rek kenn si ñoom ñetteel mu jég saay ñu xam nga suñu mburu bii naka lañ ko def dañ kaa séddoo ah yaay gars yi te foogaan di warante kenn ki ne ko non déedéet affaire dañ kaa poncé dañ kaa poncé ah gars yi dégguñu ñu ne waaw léegi nag nañu ko poncé nañu ko poncé xam naa ne poncé bi moom dana sakkan te te boobaa dana neex léegi gars yi <laughs> ñu toog na ñu ne waaw poncé bi naka naka lañ kaa séddoowee te kenn ki nekk waaye in soobandoo in sippandoo in logandoo in mukke ba yëfee yem fa